lu ma wax ko. bu ko defee sax Ibrahima Diop mën a ñëw ci leeral tuuti ci alxuraan ji noonu wax ak daara ni ñu ko war a jàppee daara dañ ko war a jàpp murid defal tuuti son muy dawaale gars yi dégluwaale antanda muy baaxaale. allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin baabil xuda na il mada muulin nada laysil ida rada baabil ula wal karami أيها الإخوة الأيساء أحييكم بتحية الإسلام التي أولها سلام وأوسطها رحمة وآخرها بركة من لدن حكيم عليم ونقول في كل واحد منكم سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته mbokki jullit ñi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk di sëf ramadaanal mubaarak Eh, di wàcce kenn ku nekk ci yéen ci jataay bi wàccuwaayam balaa may sori ci ne yooyu ma jéggalu kàddu gi bu baax eh, ndax ay sabab ay asbaab asbaab yi bokk na ci maa ngi yaakaar lool tey dëggale yaakaar ne day ab dogal buy ñëw ci man waaye mbooleem ñi ma fekk ci jataay bi maa ngi rafet njortu kàddu yi ñuy bàyyi xel ci sama jëmm keneen ku mu ci ñoom bu ko jëloon dana gën a mat dana gën a jot te dina gën a am fasaaxa kon maa ngi dogal ngant boroom xam-xam yi teew ci jataay bi ñëpp abbu bayitu sëriñ bi mu doon wax ci mbindam naan mooy oxtasiran li kulli xibrin si adab xabiri naxwin wa arodin wa adab rek dogal ko ngant borom xam-xam yëpp euh, bu ko defee nuyu kilifay jataay bi tàmbale ko ci sang bu tàdd bi mbakke noo ngi koy ziyaare bu baax di ko wàcce wàccuwaayam ak mbooleem ñi jëwriñ ji tudd léegi ne ñoom la àndal euh, gannaaw moom ñett kenn ci ñoom ñaar ñi leen di teewlu dina am lu ñu si jox bind leeral ñu ko loolu am solo la lu baax la dana wane itam beneen jàngat bi ne ñoom ay baaxis lañ ay borom yi xam-xam lañ dañuy gëstu bu baax bàyyi nañ xel alquran yàlla leen yàlla kàttanal lu am solo la euh, bi ci topp mooy sëñ xaadim li muy wax daanaka lot nañ ci lool waaye alxuraan day téere boo xam ne ku ciy nab nabi ci anam gu mën a doon boo ci bëggee góor góorgóorlu rek yàlla dana la teg loxo su fekkee jaar nga ci yoon wi yàlla dana la teg loxo ndax bari na ay aayaat yoo xam ne ci quraan ay ahadis yonent bi salaa ñëw layal ko mbir ni mag ñu baax ñi ñëw layal ko muy def lan muy joxañ ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci alxuraan rek ki ko jàng mokkal ko ki koy jàngale ki ciy dund kii jël ñaqam ngir daara ji taxaw ki nga xam ne daa xool daara ji junj nañ ko léegi dañoo soxla jumtukaay nangam amul ca daara ja moom jàngul alxuraan waaye mu yëkk yëkkati addi am dem wecceku ko wala tu tànk sàngam dafa soxla garab ci daara ji mu dem fàggu ji ko wala sëriñub daara bi ci boppam nangam da ko war ngir mu gën a jekku njàngale mi mu dem wuti ko ñoom ñëpp aayaat yi ma wax ak ahadis yi ak mbind mag ñi ñu ngi ci biir kon barke boobu di ci bàyyi yàlla nañu ko yàlla bokk defal te bokk na ca jàng nañ ca alquran inna allazina yatluuna kitaaballahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuura li yuwaffiyahum ujurahum wa yasiru min fadlihi innahu xafuurun shakur aaya boobu damay wax ne bénéfice yu bare bari la am ci quran ndax bu fekkee ne yàlla daf laa tawféexal surtout nga man ko ba noppi di góor góorgóorlu di joxe di di di jaamu yàlla di taxawe julli yi waaye di dimbale jaamu yàlla yi li la suñu borom xéewalee mu néew mu bari nga di ci jël di joxe kooku bu fekkee dañuy tànn ab jaamu bi yàlla dëgg dëgg dëgg boo ko fi romboo bàyyi nga dëgg dëgg jaamu bi yàlla. koo xam ne ma ngi dundal téere bi yàlla bi ci anam yu bari di ko jàng di ko jàngale la cay ballaloo ci ay xeeti xam-xam yoo xam ne nit mën na koo jëriñoo mu di ko laabire jaamu yàlla yi. waaye ba noppi moom mu teg ci tànkam di ko dundal ci jaamu yàlla yi awqaatu salawaat yi waaye wërsëg bi nga xam ne day bàyyi ko yàlla da ko ko wërsëgal mu di ko séddoo séddoo ak jaami yàlla yi kooku mooy dëgg-dëggu jaamu bi yàlla fa tuubaa li abdin yaabudullaha rabbahu suñ tubaa daf ne fa tuubaa texe texe texe ñeel na li abdin jaam boo xam ne yaabudullaha rabbahu dafay jaamu boroomam ci lan bi tartiili quraanin jaam boo xam ne yoon wi muy jaar ngir jaamu yàlla boroomam subhaanahu mooy settantal ak tartiil bu baax bàyyi xel alxuraan settantal googu nag dama ko ubbee ne ku ne mën na cee dugg yow mi nga xam ne jàngul alxuraan bul yaakaar ne bokkoo ci ah kay ndegam yaa ngi am yitte ju toll ne taxawu ñu koy jàng tuyaaba juñ ci am cër buñ ci am ci jàng gi ak wattu gi moom nga tey am bi tartiil quraanin azimin waaye lan lay def ci yow yaxi karba boo koy jàng Sëñ Tuubaa na dalay fegal mbooleem tiis ak njàqare waaye moom ci boppam li tax ñu man koo téye wax jooju moom daa joxoñ jëm moom wax ne xat-xat yooyu mu nekkoon njàqare yooyu alxuraan moo ko ko teggil bihi zaala xammi xiina am zaktuhu uda sa uhdi bi nafsi wa uhdi bi saxba alxuraan ci la jaar ba orienté wu moom te ci lay orienté ñi ko topp alxuraanul karim kon day bind boo xam ne lu gudd la euh, ngir tarib tu tànk yi ma daane ci kàddu gi duñ ko mën a yaatal ndax du mawdoox bi nekkul waxtaan ci alxuraan lan la nekk euh, tu tànk yi ñu muraaja maanaam musaahara bi ñu amal ni ñu nafar lenn wane lenn ci liñ doon jàng ci sëriñ Banka wax léegi ci daara ji te tamit bala may daaneel ma man jataay yu bari damay amal am njàngat tu tànk yi eh, ay ndaw lañ lool te sëriñ baa ngi wax léegi saar yi ñu doon jàng xëy na ñoom li ëpp ci ñu jotaguma jàng ñoom la ñuy tuddee xëy na saar yi suufe yi waaye loolu du du kii de du lu suufe de li ci am solo mooy benn tu tànk bu mu ci doon bu yéegee ci bopp saar wi bismillaahi rahmaani rahim ba saar wi di jeex xuraan ju leer nañ lay jàng xaw ma ndax ni ma ko bàyyee xel di ko jàngatee noonu ñu bari noonu lañ ko bàyyee xel waaye li wér te wóor mooy xale bi lu ay atam néew néew su dee teewlu nañ ko bu deen xul wallahu ahad la tari li tàmbale bismillaahi rahmaani rahim ba saar wi di jeex alxuraan ju leer nañ ñi lay wax lan lay tegtale kii de buñ ko gungee nii ba mu wat wat alxuraan ci xuffaas yi lay bokk te diine lislaam dina gën a am yaakaar ci ndaw ñi niñ ko taawoo bi ci topp jataay bii ñu nekk fi ne maanaam li tàmbalee fanweeri at jëm suuf da ci sama yaakaar moo fi ëpp moo fi ëpp laa wax li tàmbalee fanweeri at jëm suuf kon ay ndaw a fi nekk kon jataay bu yaakaaru la boo gisee ñuy jël kàddu gi nii wallahi euh, suñ xaadim dañoo jaxasoo ci lépp sañ awar mais moom doy na ci seede Sayid Moustapha mii xam na ci dara kon boo bëggee bokk ci ñi tàntànne fi lépp luy tax daara ji dund nang ci na nang ci nekk basan gu daara ji soxla laltu yu daara ji soxla téere yu daara ji soxla jumtukaay ba ba ci oto bu sëriñ bi soxla ngir di ko doxee ay yitte yoo xam ne day dama ko ñëw ngir jàpp na lal daara ji da ko ko fàggul wasalaamaaleykum wa rahmatullah alaji sëñ daam fay xasaayit mi ngi dugg si noonu jàmbaar sëñ Tuubaa mën a jàng lool si Moussa si waa jàngi ñëw sëñ daam fay xasaayit saxam laat sëñ daam ngi li ñëw Moussa waa léegi maa baana acco dafa leen sa sàpp si mu jëkk bisimilah. صلى الله عليه وسلم إخراجك واتسما كن خمخم لن ورجيتا قلائب لن تسقياك am réew su jàmm ma baaxee seen i njiit réew gëm ko population ba gëm ko nama réew mën naa am ndam galawaay mu leen tas yaakaar President sept ans nga am nga war ñoo tari suuratu takwir ak suuratu shams ah macha allah lii gis nga sa papa mënoon na ko bi muy am sept ans ah sa papa bi muy am sept ans mënoon na ko ah da da والجبال سيرا وإذا الإنسان عدلا وإذا الأرض سيرت وإذا البقال طويلت وإذا وإذا النساء وإذا وإذا النفاس زوجت وإذا وإذا وإذا وإذا المودة سئلت صدق الله العظيم se wa de والمزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو نصف منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا شيلا إن ناسية الليل هي أسد وأوهق ومهيلا إن لك في النهار سبقا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم ما شاء الله فضيل تقدير boole na leen mu boole leen ci anam bi gën muy alxuraanul karim ngeen koy ànd di ko dundal ngeen di séq ay teraanga ci seen diggante loolu jiitu lu yàgg loolu dem ba agsi ci bisu tay bii nga dem ba yoral ko daaram ji di ko jàngaleel dangay ngay jàmbaar lool di ko am pastéef loolu moom defe naa ni képp ku la déglu xool sa doxin ci bis bi rek xam na ni yow bokkoo ci ustaas yi nga xam ni dañuy tappale bokkoo ci bi ma la xamee ba léegi ci Pastef laa la xam te loolu ko dafa baax ci ci ab ustaas ab ustaas warul tayal quatre heures du matin ñëpp di nelaw nga yeewu yee xale yi ñu jóg jàng ku tayal mënu ko neuf nga duggaat ci classe bi nekk fa ba treize heures ku tayal mënu ko te ci suuf ngay toog quinze heures nga duggaat ba dix sept heures wala dix sept heures et demi ba dix huit ku tayal mënu ko dix neuf heures et quelque nga duggaat ba vingt et kooku tayalul kon parents yi nañuy xam ni ustaas yi di jàngale lii la ñuy ñoom bokkuñoo maîtres yi ci classe yi ñoom ñoo leen gën a sonn foofu maîtres yi ci classe yi sept heures ki gën a teel a yeewu lay yeewu sangu sol kosningam dem dugg huit heures ay heure lay jàngale dem ñibbi te moo ëpp salaire foofu ustaas yi kon ustaas yi kenn mënu leen a fay dañoo sonn loolu moo waral nag barke bi topp leen lu luñ bëgg am xaadim da baax waaye yow ay jesineeri jesineeri jesineer ngay am waaw lépp dina ñëw Sëñ Abdou bi muy tàmbali bis bi defe naa lépp sëñ naa Juuf mii ah dara ëmp ko ci ndax kóllëreem ak bis bi tax na mu am tey cër bii ci bis bi kóllëre la defe naa boobu baas bi daawul tollu nii ci yaatuwaay ñi fi teew ci effectif bi fi teew yi daawul toll nii daara ji itam tollutoon nii donc ngay yokk nañu bis bi yaatu na kon loolu mooy lu baax rek lu baax moom boo koy tàmbali day mel ni lu lu day mel ni daal baaxut ndax day metti lool da nga naan ana yàlla ana yàlla fu yàlla féetee waaye suñu borom ay mbiram doxewut noonu yàlla mbiram bokkut ak mbiru seytaane seytaane moom da nga naan bërëb rek mu tàmbali di baatare loolu ngay gis parfois ci ci ci ci ci euh, ci yenn événement yi nga xam ne événement àdduna la da gis ni baatare ga fa la ëppee da ngay tàmbale ne bismillah tàmbalee way rek nga gis ko jugee fële kooku seytaane moo ko wommat bu ñëwee la ca poos ba lépp la lay jox waaye bu demee jéppi la waaye bii dem di jéppi te am na lu mu cay wut appareil itam ci baatare gi waaye ki baatare léegi fii daa baatare ba noppi di jooy waaw dafa baatare ba noppi di jooy pii ci àdduna loolu mooy xeex ak yu bon bon yi fi ne salte salte yi fi ne ba ëllëg du yóbbaale dara su liggéey nag nga bokk ci ñi nga xam ne seen xol dafay set nga mën a dund dund gu tey ci at ci àjjana ya kon alxuraan day képp koo xam ne jàpp nga ni am na lu ko féete kaw sa xel nax na la ndax boo seetloo lu àdduna bi yaatu Sénégal gii tey boo xoolee ñi ko géré yilif ko dëgg dëgg yilif nag waxuma ki ñu ki euh, waxuma ki jiite réew mi de waxuma loolu ndax réew mii tey boo xoolee tey bu demoon bay tàkk bu sëriñ Cheikh mun Mountakha waxee benn kàddoom mu fay xalifa bu ci wax rek di nga gis effet bi muy def ci musiba bu fi war a am te loolu dund nañ ko ci année yi passé kon loolu lan moo ko mayee mooy alxuraan moo leen defar alxuraan leen defar moo moo moo leen may ñu am pouvoir bu toll noonu lu ñu wax ñu mën leen a déggal kenn du jël sa njaboot di jiital ci moom alxuraan di ko bet di ko di ko di ko réccu loolu ku ko weddi xoolal ci abdulaat mii sama rakk la jàng na alxuraan mokkal ko nanguma ku ko gën a mokkal ndax man xam naa ko bu baax bokk nañ jànganoo te jàngal naa ko xam naa ne ku mokkal na alxuraan mokkal gu wér te fii may waxee yow nii jàng na français te kenn rawu ko ci itam gëm naa loolu anglais kenn rawu ko ci man gëm naa loolu ndax mbooleem ko bi mu nekkee ci école bi mbooleem loo xam ne ñu ngi koy def ci wàllu composition yu mel noonu su mboroom da ko cay dimbale ak ay rakkam ñoom ñëpp te moo ko nañu alxuraan te teewul jàng na ba am bagam dégg français dégg anglais ba noppi nekk ci université bi di jàng taxawal lu mel nii kon lan moo tax rek ñu ñu gëm nii suñu njaboot gi buñ leen dugalee ci alxuraan dañuy tardé tardé wuñu dañuy tedd nit mën nay dund te du tedd mais alxuraan bu jiitoo ci yow da ngay tedd nit ñi force ñu teral la force force waaw kon nag loolu dama koy soññee rek waxtaan bi daal lu rek la duma ci yokk dara ndax bëgg naa bis bi ñi fi war a wax wax ñi war a wax mooy borom bis bi sëriñ baa ngi ni toog suñ ginnaaw mooy borom bis bi luñ fi war a wax dana ko wax sëñ naa Juuf a ngi nii moom lañ ko tuddee luñ lu mu fi war a wax dana ko wax waaye nag man soññee laay def dama war a def conférence waaye duma ko def damay soññee ci alxuraan ngir ñu gën koo bàyyi xel jël njaboot gi teel leen a dugal ci alxuraan man daal loolu bëgg naa ñu bàyyi ci xel bu baax. nuun wal qalami wa maa yasturuun maa anta bi ni'mati rabbika bi majnuun وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المقتول إن ربك هو أعلم بمن sarbe diis nag ay na fekk lay waxal sarbe diis اتخذوا أيمانهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله عن سبيل الله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 السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز صدق الله صدق الله العظيم ما شاء الله تكبير تكبير بسم الله الرحمن الرحيم سبق لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولون ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد وقد تعلمون أني رسول الله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 إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سدر موضوع متكئين عليها متكئين عليها متقابلون صدق الله العظيم ما شاء الله ورحمة الله allah sadaqallahu al-azim macha allah macha allah alquran ji rafet na trop man lu may insister rek بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم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 فكان قاب قوسين أو أدنى وأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذبت فؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلته الصحراء عند سدرة المنتهى عندها جنات المهوى إن يحشح شجرة ما يحشى صدق الله العظيم أعوذ tijaaratan صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله sadaqallaahu l-aziim. takbiir. maaleykum. auzu billaahi mina shaytaani rajiim. bismillaahi rahmaani rahiim. صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قائما تصدع من خشية الله وتلك تذكرون والله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ما شاء الله صدق الله العظيم صدق الله العظيم الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلم بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذان وقر ومن بيننا وبينك حجاب فما لنا نعمل صدق الله العظيم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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط فقد حق القول على أكثرهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم الغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان وبال آخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم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 وإني خفت الموالي من ورائي وآخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رديا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك